mooy ndawal moom tim dafa yokko ndax kilom ndawal ma ngi doon jar lu toll si juróom benn téeméer léegi nag ma ngi jar lu toll si juróom-ñaar cay téeméer yéene kaay gi ne na bëri ay lujum yoo xamante ni dafa yokko rawatina ci banlieue bu ndakaaru yéene kaay gi di la turbina nee na bëri na ay njëg yoo xam ne dafa yokk ba maara daytaal yi rawatina li nga xam ne mooy ginaara te instant bii bu ñu waxantee dëgg maanaam réew mi metti ndax bëri na ñoo xam ne amuñum xëy am na ñoo xam ne seenub liggéey dañu ko ñàkk te la xam ne moo ko waraloon muy coronavirus bi yéene kaay gi ne na coronavirus boobu daal ba léegi nii bëri njaboot yoo xam ne moo leen jàpp yéen a kaay gi di réew mi quotidien en tout cas wax ji gudd gàtt mooy koriteg ren gi dana metti lool lool ci ñenn ñi yéen gi de la sax xëy dañu xibaar naan ñu weer wi niki démb am na ñenn ñoo xamante ni nee nañu gis nañu ko coordination des musulmans du Sénégal ñoom tey ji ci àllarba ji la ñuy wore yéen a kaay gi nee na ci diiwaanu Fuuta am na ñu ne gis nañ fa weer waa yéen gi di réew mi quotidien nee na réewum Sénégal ñaari julli lañ fi gisaat maanaam xaajali ko a kaay gi nee na njiitu réew mi di président Macky ma ngi ñi nga xam ne maanaam ñooy ñi Macky Sall ma ngi lekk ñi nga xam ne ñooy jeunesse bi ginnaaw nag bi mu leen diggee ay emploi jël na lu toll ci ñaar fukk ci ay bus dugal ko ci université yi yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ak Vox Populi ak di Quotidien ñoo xëy di ñu ko xibaar yéenekaay gi di Source ak xëy di ñu xibaar mbir mu doy waar a doy waar nee na dafa am benn jigéen boo xam ne dafa jëloon doomam ju feebar yóbbu ko ci hôpital Dalal Jàmm waaye nag duutu ko dooleeti ndax ba ñuy faj doomam dafa commencé wane nelaw ab sàcc jaar fa na donge téléphone bi nga xam ne moom lay yoroon ab iPhone 12 X Pro yéenekaay gi nee na téléphone boobee huit cent hôpital ba moom nag nee na daal du agent yi nga xam ne ñooy liggéeyee ca opital ba ndax caméra de surveillance ba maanaam keneen la wane ka nga xam ne moom la caméra de surveillance ba wane kooke liggéeyewul ca hôpital ba waaye jigéen kooke nga xamante ni nag moo jëloon doomam yóbbu ko ci hôpital ba ñu sàcc ab téléphone am jamono ji nag daan nay porte plainte contre X yéen a gi di réew mi ko di jeexee duñu xibaara naan ñu journaliste bi di Pape Ndiaye ñu koy tuumaal lu jëm ci wàllum escroquerie ba léegi ne génnagul ci mbal gi ginnaaw jigéen gi nga xam ne moo ko tuumaal ne daf koo jox lu toll ci cinq cent ngir mu lijjantil ko mbokkam moo xam ne ma nga ci kasu bi am na keneen koo xamante ne daggee na ca làng ga ñëwaat porte plainte Pam Ndiaye di ko laaj lu ci benn million boo xamante ni joxoon na ko ko lépp nag jëm ci wàllum escroquerie ñoom ñaar ñooñu nee nañu Pam Ndiaye di leen a waxoon ne leen seen mbokk yi nekk ci kasu bi mën naa fexe ba mu génn yéen kaay gi di libération xëy na nag di ñu xibaar naan ñu Pam ak jigéen gi nga xam ne moo ko porte plainte message yi nga xamante ni moom la ñu envoyante maanaam ci whatsapp bi doy na waar bu jigéen boobee nga xam ne moo tudd Ndeye Awa Ndiir nee na ko Pam Ndiaye sama dossier maanaam foo si toll ci message responsable loolu ko xale bu jigéen wax Pape Ndiaye na ko yaa ngi ci biira ndaya ba ñu demee moom yàggaat xale bu jigéen bi daal di koy yónnee message na ko delloo ma sama xaalis wax ji daal di jeex Pape Ndiaye na ko dangaa bëgg na ñu annulé li nga xam ne mooy procédure bi ma jël xaalis bi ci ke ma ko joxoon daal la koy delloo loolee ab laaj la xale jigéen bi nday awandiir na ko man daal li ma soxla mooy nga jox ma sama xaalis Pape Ndiaye na ko incha allah yéene kaay gi xëy duñu xibaar naan ñu tey ji ko daal di defeere ci kanamu procureur yéene kaay gi du Sud Quotidien ak Rewmi Quotidien xëy duñu ñu élection janvier 2022 opposition bi ak pouvoir bi ba léegi ni ñoo ngi gita ngaas yéen kaay gi ci xalima ak Assane Samb lii nga xam ne mooy caution dix millions bi loolee nag dafa ëpp te lii nag dina tax ñu baree a nekk xam ne moom la ñu dëkk société civile bi ak majorité bi ñoom ànd nañ ca dat ne ñooy waa PDS ñoom nag nee nañu daal mbir mi daal danañu ko càmbar Saliou Sarr mi nga e ni mooy coordonnateur pôle opposition bi ci yéen kaay gi di Vox Populi ak L'As nee na nag élection locale yi maanaam kenn du ko boycotté dañoo war a dem nga xam ne nag ñooy Front Résistance Nationale ñoom Mamour Diop Decroix tey jii danañu amal conférence de presse yéene kaay gi de l'info xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko njiitul boo xam ne wàllu franc CFA la ñu fay waxtaane waaye Ousmane Sonko du mën a génn réew ndax dañu ko contrôle judiciaire yéene kaay gi de la Soleil xëy duñu xibaar naan ñu tiirante balu fetal yi nga xamante ni moom la ñu doon wax ne armée sénégalaise da ko doon def ak ñoo xam ne dañoo njortu ne ay rebelle lañ ca diwaanu Casamance acc yéene kaay gi de Dakar Times xëy dañu xibaar naan ñu Sénégal soo moytuwulee maanaam nag dina ñëw bokk ci kuréel gii nga xam ne ko jiite woon te génn moom la ñu mujj amale Sénégal génne woon na ci benn milliard maanaam daal leen koy jàppale yéene kaay gi di Vox Populi xëy dañu xibaar naan ñu Ousmane Tounkara mi nga xamante ni moom la état bu Sénégal porté woon plainte tuumaal ko lu jëm ci wàllum terrorisme ca diwaanu états atte nañ ko niki démb waaye nag la nga xam Tunkara maanaam dana toogaat ca kaso bu lu toll juróom benn ci ay weer en attendant ba xam réewum Sénégal danañu def appel yéene kaay gi de esat xëy duñu xibaar naan ñu Barcelone ni ki démb def na faux pas ci match bi nga xam ne moo doon dox digganteem ak Levante kenn ku nekk ñetti bal lu dugal sa morom gën naa yombal mbir mi nag ñi nga xamante ne ñooy Atlético Atlético tey jii dina daje ak Real ma na nag su ko gañee gën a dëgëral li nga xam ne mooy ab toogoom ñi nga xam ne ñooy waa Real Madrid ni ki suba war nañoo football ak Grenade bu ñu gañee ba léegi mën a bokk ci xeex